nombreuses personnes yi ñu jàpp dans des actes de saccage de complot euh, d'incendie d'association de de de malfaiteurs y a un lien qui ne on ne nous a pas encore on a dit pris Ousmane Sonko pour ay crimes euh, terrorisme appel à l'insurrection et cetera mais on ne nous a pas expliqué encore en tout cas euh, euh, à la suite d'une conférence de presse le lien qui existe entre ces jeunes qui ont commis euh, ces actes criminels là et et Ousmane Sonko pour le moment li ñu teg suñu loxo ce sont les nombreux messages d'appel à l'insurrection que je ne justifie pas qui ne peuvent se justifier mais le lien n'est pas encore fait mais comment on fait aussi pour dénouer cet imbroglio c'est juste que l'État soit un État de droit et que la parole publique euh, soit une parole euh, une bonne parole la vraie parole quand on dit on mène une enquête que l'enquête soit sérieuse et aujourd'hui en réalité depuis deux mille vingt et gisoo benn enquête amul benn enquête boo xam ne teg nañ ko ci table bi pour ne ni lii la partage ko ak nit ñi donc c'est pas sérieux et combien de fois nga gis ñoo xam ne dañu leen tëj teg seen doq euh, euh, insurrection appelant l'insurrection dañu def lii dañu def lële te fekk simplement fekkee ma ci boole te ñu nekkoon simplement ci coin bi ñu jàpp lañ teg leen euh, charge yu mel noonu am kenn koo xam ne xam nga ko Aliou Sané euh, même chose nekk situation boo xam ni euh, dafa il n'a rien fait ñu jël teg soo demee charge bi chef d'accusation yu mel nii la donc donc. no am na ñoo xam ne mais mais mais. non je ne dis pas non je ne dis pas non attendez leen mu leen mënu leen mënu leen weddi ne. non y a eu des sénégalais qui ont décidé de comploter contre la stabilité de l'État. no li ma xam am na ñu ñu ci jàpp ñu wóor. li ma xam adduna. terroriste am na li ma xam y a des li ma xam mooy su dee am na ñoo xam ne ñu ngi wax seen dëgg di xeex seen xeex boo xam ne kii pur épuré am na ñoo xam ne dañ ciy profiter pour sàcc pour toj pour et cetera mais loolu y a rien faire loi dafa war a nekk un état fort daan bi ñu war a teg ñooñu dañu war a teg daan googu mais par contre li may bañ ak li ñuy xeex mooy il faut éviter di judiciariser loo xam ne dafa politique koo xam ne deful bokk ci wala kenn koo xam ne da ko bëgg a atteindre nga accuser ko nga accuser ko ba pare teg ko daan yoo xam ni yu mel nii ay insurrection ainsi de suite euh, franchement les Sénégalais ne sont pas dupes ñu ngi gis et c'est en ce moment en fait que a commencé am ay perception négative ci suñu institution te crise de confiance euh, vis-à-vis de nos institutions dafa nekk lu garaaw quoi crise de confiance dafa garaaw dafa garaaw il faut pas mu am une crise crise de confiance il faut que ñu restaurer la dignité de nos institutions le parlement man j'étais parlementaire am na yoo xam ne ça n'honore pas un parlement mais yow